ndaw la woon dafa amoon euh, euh, rêve géntam moo doon nekk football euh, du Faye dañ dafa jaar ci gaal fukki at ak ñeent la amoon mujjul àgg gént ga dafa jaar tàbbi géej géej sax fa la bakkanam desee ndax bokkoon na ci xew-xew yi gënoon marqué jamono jooju askanu Sénégal ñu nekkoon ci mbas mais nekkoon également ci crise bu doy waar ba tax ndaw yu bëri jëloon gaalu looco Doudou Faye gonek mbuur ga bakkanam des ci géej géej bokk na ci yi ñuy fàttaliku tey euh, waxtaane ci ñu dem seetaani élément bi dellu si waat fukki fan ak juróom-ñaar ci weer novembre atum 2017 si la ñu arrêté woon ca New York Cheikh Tidiane Gadio ancien ministre des affaires étrangères fukki fan ak juróom-ñaar ci weer novembre atum 1979 ñu inauguré ci Dakar camp Abdou Diassé ma wuutu camp Mangin ko fan ak juróom-ñaar ci weer novembre atum 2019 apparition officielle SARS-CoV-2 di coronavirus nga xam ne nii mooy responsable Covid-19 ba feeñoon ca Wuhan ca Chine. fukk fan ak juróom-ñaar weer novembre atum 2006 génn àdduna Pukas doonoon footballeur hongrois. fukk fan ak juróom-ñaar ci weer novembre atum 1950 journée internationale de l'étudiant lépp fàttaliku attaque ya amoon ci université bu Prague te nazi yi amaloon ko ci atum 1939. fukk fan ak juróom-ñaar ci weer novembre atum 2020 taxaw ci dat li ak tiis ga nga xam ne nii Sénégal dundoon na ko di génn àdduna Doudou Faye ci géej gi moom ma bëggoon dem ca Espagne te doon football dem ba Mbour fekk fa Abdourahmane Diallo mu dellusiwaat ci histoire bi li ci xew daaw ci jamono ji lañu doon waxtaane ci lu jëm ci wàllum Duudu Fay di xale bu am fukk ak ñeenti at mi nga xam ni dafa ñàkk bakkanam ci géej gi ginnaaw bi nga xamee ni nag dafa bokkoon ci mbëkk mi ay waajuram dugal ko ci gaal bëggoon ko yóbbu Europe ndax Duudu ku mënoon fubal la nekkoon fii Sénégal ay waajuram fay lu toll ak cinq cent mille francs CFA ñu boole ko ak ay nit dugal ko ci gaal gi Duudu daal di ñàkk bakkanam ci biir gaal googu ñu daal di koy sàndi ci diggu géej gi mu doonoon mbir mi nga xam ni askan wi ñëpp ko ñaawlu ci jamono jooju sax ñu tijji ab l'enquête le 13 novembre ñu daal di jàpp wéy juróom bu góor di wuyoo Mamadou Lamine Faye ci lañ ko daal di tëj mujjantal ga ñu àtte ko àtte boobu sax ñu daan ko ñaari atu kaso ak benn weer bi nga xam ni daf ko war a tëdd teewul l'enquête bi di wéy ci loolu sax ñu daldi ci teg loxo ñaari doomu aadama ñoom ñu jàpp ni bokkoon nañu ci gaal gi nga xam ni ci la duudu daal di yéeg kenn ki di wuyoo Lamine Gueye keneen ki di wuyoo Omar Gueye mu doon ñaar ñi nga xam ni ñoo bokk kër ay mag ak rakk lañu bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ni génnoon na ci l'enquête boobu wala bokk ci àtte bi waaye juru duudu lamin Gueye la daal di jox xaalis bi ngir ñu mën a yebal duudu ci gaal googu gaal gi nga xam ni sax ci la ñàkkee bakkanam ci diggu géej gi àtte boobu ci lañu ne moom mooy lamin géey ñaari atu kaso juróom-ñetti weer yi nga xam ne war na koo tëdd kii di Omar Gueye li ñu ko doon tuumal gisuñu ci lenn mu jëntal ga ñu daal di koy bàyyi mu amoon nag ñetteelu nit bi nga xam ni jàpp nañ ni moom moo moomoon gaal gi ba jamono ji nga xam ni ñu ngi ci doon wax kenn tegu ko woon gët mbëkk mi nag doonoon mbir mu lëmbee fii ci mbuur ndaw yu bari daldi ci ñàkk seeni bàkkan bu ñu sukkandiku ci ONG espagnol bii nga xam ni moom lañu duppee Caminandos Fronteras lu ëpp ñaari junni doomu aadama daaw ñàkkoon nañ ci seeni bàkkan Euh, aywa Malick Kandoum mu nekkoon euh, euh, émotion bu métti ci réewum Sénégal maa ngi fàttaliku sax amoon na benn deuil virtuel bu ñu décrété woon ci réseau sociaux yi bu weesoo reportage yi ci def muy loo xam ne quand même daf doon wane rek ne ñu ngi woon di xeex benn mbir muy mbas mi mais beneen filéwo bi gënoon métti mi ngi doon mi ngi doon xaw a gaañ ci suuf te lii mooy misaal bi quand même. waaw li des ci géej gi bari na ci mbëkk mi mais kaawu Duudu dafa dafa dafa nekk lu nga nga xam ni dafa tiis ñëpp. un brillant élève. waaw mi ngi doon def troisième am fukki at. ak ñeent. mën a football lool. Euh, xëy na mën a football googu ak rêve bi nga xam ne moom la ko ñëpp doon euh, yéene muy mu dem nekk professionnel. loolu moom moo indi jéye ji ba papa Mamadou Lamine Faye. Euh, ci influence su ay je ne les appelle pas des recruteurs parce que les agents recruteurs. du ñu jaarale sa doom ci géej. dañ koy jaarale ci anam yu leer. ba yóbbu ko mais am na ñu nga xam ne c'est des trafiquants d'enfants. Mhm. ñoom ñoo lay gëmloo ni sa doom boo ko dina mel ni. Euh, Sadio Mané. et cetera donc loolu lañ ko gëmloo sa doom dafa mën a fubal teg ko pression. pression sociale boobu moom moo tax tey mu jël xale bi dugal ko ci géej gi. fayal ko 500000. booy bi dañu dem voyage bi yàggul dara mu feebar ci biir gaal gi. bi mu feebaree. gars yi mënuñu ko faj mënuñu ci dara. 14 mhm. ans au fil du voyage mu dem ba mënatul amatul benn kattan. Mhm. mu mujj faatu ñu jël ko sànni ci géej gi. Mhm. Euh, foofu et li ci metti euh, Fati. mooy yaayam yëgul dara ci yëf yi. lu dul sa doom dee na sànni nañ ko ci géej gi. donc loolu yëpp nekk lu nga xamante ni vraiment. lu triste la ñuy waxaat encore une fois parents yi. nañu gën a am euh, maanaam dal. man sama doom dafa mën a fubal. je suis journaliste sportif. dañ koy gëmloo ni sa papa euh, mën na laa yóbbu. Mm. boo demul sa papa la neex. Mm. nangam nangam booy bi il me la pression mais xalaatuma jaarale ko ci yoon bu nga xam ne. Mm-hmm. du du noonu. yóbbu naa ko mu def test yóbbu naa ko jàmbaar yóbbu naa ko. Euh, Déni Biram Ndaw et cetera. Mhm. dem na ba ñu retenir ko benn instant ñu wàññiwaat ko mu ñibbisi ma ne ko continue de travailler. Mhm. bis bu yàlla dogalee nga war a dem di nga dem. donc il faut prendre ses responsabilités. Mhm. mais xale 14 ans nga jël ko dugal ko ci gaal. quand même euh, voilà il a quand une certaine légèreté. Euh, de la part de son papa. je sais que metti na ci moom. parce que la mu yéene woon du doomam des ci géej gi. Mhm. mais euh, aujourd'hui c'est clair que am na naqar bu nga xam ne dina ko topp ilaa yow mi di. Mhm, sa doom faatu ñu tëj la kaso et puis euh, mu def la cas de conscience boo xam ne euh, amaana du tàggoo ak yow ilaa yow mi di ne abadan merci beaucoup Malick Thiandoum 7 jot na ba tegal ay simili te 7h info Cheikh Tidiane lañ ci àndal ci tënk lay nekk.